alhamdulilah ñoo bokk ak Koungheul waat bu loolu weesoo nag dama nuyu ci nga xamante ni mooy. maa ngi nuyu borom Tambacounda borom Tambacounda maa ngi lay nuyu foofu rek laa yem su ma waxee damay feeñ. Thiès nag filmam kenn xamul lu mu toll man Tamba bu gaa yi nelaw may filmer Moussa numéro a bu école. ak Jël Deme ak Jël Deme. ñoo nga ca géew ba ñoom ñaar. arbitre baa ngi leen di wax li lamb bëgg ak li mu bañ monsieur l'arbitre ko moo nekk ak ñoom. ndaysaan arbitre sifflé na maam sa jël dem toj na nan jël dem toj nan alaaji Moustapha Ndiaye sekk naa naan maam sa ngi ci géew bi jël dem ngi ci géew bi arbitre nee na ñu ci gasi eh c'est nous c'est nous c'est pas lui eh c'est nous c'est nous nga ni sekk naa naan il faut parler français alaaji Moustapha c'est nous c'est nous c'est pas lui moi c'est moi c'est moi c'est moi nga ni c'est li ñuy def nan dem ko dëgg la sekk naa naan maam sa jël dem ci géew bi maam sa ak jël dem ñu ngi bi na ca mbapat dëgg la Cheikh Ndanane arbitre sifflé na génn sa ñaar Alaaji Moussa Fa ak Cheikh Ndanane danoo jël tam moo ngembo ngemb lu bëlali wan nu ginnaaw maam sa ngembo ngemb lu kanam ñoom ñaar jël tam dóor na eh, sa dóor na crochet gauche ñoom ñaar maam sa dóor na crochet eh maam sa daa yooru ñoom ñaar ko oh, daan ko jël tam daan na sa Ndiol Dame daan na Mame Sakho door crochet. da door da koo door mu dëpp ko naax daan ko si géej moom. kaay nii jël bu amul feneen waaw dama bëre lii rek moom war waa Tassette dañoo topp sama ginnaaw billaahi lii rek laa leen doon fayee. da laa xeex nga dóor mu daw sangu la nga dóor nga dóor ko saako yi. waaw noonu la damaa cokkaas xeex xam nga bëre moom bëre dóor faaw nga jël coup doo ko bëre man gaynde laa ku xam-xam ne man gaynde la foo jëm Tassette. daanaan gaynde laa daan. gaynde moo daan gaynde. nañ ma jox si gars yi nañ ma jox si ponkal nañ ma jox si ponkal yi ma jox ma jël. Sa daa daanu Mame Sa daa daanu Mame Sa daa daanu Mame oh. la waaw def ni may ñu liggéey Mame Sa lan la may leen ñu liggéey waaw dañ koy laaj lan la dëgg la Mame Sa lan la Alaaji Moustapha ñun la Thiès Info télé bu mag baa ngi nii lamb ja jeex na nee naa la lu waay def da koy da ci mbapat sekk ndaanan alaaj Moussa Fa dañoo mbapat maam saa woon ak ki nga xam ne moom mooy jël dem bu taseb maam saa waree ko deli Cees mbooloo gis nga xale bi daf ko dóor croisé maam saa yooru mu taf ko xalab ko dëbb ko balaa teg dàq ko plaqué mu daanu lamb jàngoog mbokk yi Cees info bu caméra mu leer du suuf su am grain maam saa ngoog loxo bi dafa simeeku waaye jël dam daan ko jël bu rëy da koo mu daw song ko mu dëbb ko nax tur ko saaku yi kooku yi combat bi ak ban fierté nga ci am. waaw dolli euh, di wax alhamdulilah euh, ñu remercier le promoteur de la jeunesse Cheikh Niang bi nga xam ne moom moo jël lii jagleel ñu ko ñu delloo ko jox ko l' incontournable et l' incontesté le directeur général qu'on ne présente plus. je l'ai dit tout à l'heure bi ñu ñëwee journaliste bi mais du ñun la gis Siré mi nga xam ne moom la ñu yónni ñu jagleel ko lii moo dugg ci xolu Thiessois yi moom moo dugg ci xolu jeunesse thiessoise donc moo tax bi ñu duggee ñëpp di ñu kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm délégation bi ñu àndal yëpp Pa Jaxu Sall jiite ko ñoom Ndey Daba ñoom ana Claver ñoom Jeegay ñoom Kole Diop ñoom Soxna mbub góor ñi ñu ngi gërëm ñëpp ñoom Lamine gay ñoom Samba ñoom Gosar ñoom Alpha Diallo ñoom depi depuis bi ñu tëree ba léegi ñëpp amul kenn ku tànqam lu ñu ngi ànd ak ñun ñii ñu ngi jëli t-shirt ñii ñu ngi indi seen ndox les Babacar Sarr Khalifa Sarr son grand frère ñëpp jël na nañu ne bisu Siré Dia ku nekk da cee bëgg a dugal loxoom kon ñu ngi sant population thiessoise yëpp di leen wax ne lii mooy Thiès lii mooy euh, Sénégal kon donc nañu seet li amal njëriñ Thiès ñu ànd ak moom li amal njëriñ Thiès c'est l'incontournable Siré Dia nañ ko jàppale jëli carte électeurs yi jeunesse bi promoteurs yi lutteurs yi ñëpp nañu jaayante takk seen laxasaay fas yéene ànd ak li directeur général jox ko ndam mu jël li des parce que jëloon na élection yële ba pare dafa am lu ndaw lu des loolu la ñuy jël raatale ko téye ko jox ko président de la république dès premier tour mu am ndam lu yaatu ñu ngi encouragé ñëpp. di ñëpp journalistes aussi Test TV Chess euh, Info précise de Doumbouya sunu xarit Doumbouya jël na ay t-shirt yi sunu label bi moom moo ñu ko lancel moo ñu may ay t-shirt jël ay enveloppe financière maye ko ci turu sirédia kon ñu ngi koy sant di ko gërëm di jox di daje ñëpp bis yi ñu ñëw. parce que li ñu dëgmaloon euh, fan yëpp ñu ci wax mu doon drapeau bi nga xam ne dañ ñu ko tuddee ñu jël lépp delloo ko ki nga xam ne sunu kilifa euh, ci politique muy le directeur général Pape sirédia kon dañ ci sant yàlla comme yëf yi jeex na ci jàmm. Ah, Ah, di remercier nag euh, ki nga xam ne moom mooy le promoteur Cheikh Niang le promoteur de la jeunesse ki n'est plus le promoteur Cheikh Niang seulement mais Cheikh Niang Moussiré Dia parce que kenn na tablewul ne keroog ànd naag mbooloo mu takku ñu nekkoon ci yeneen parti ñëw def ralliement ci ginnaaw directeur général parce que nee nañu depuis que ñu commencé tëgg ba léegi mosu ñoo gis ku leen di jàppale Thiès ku dul Siré gis nañ ne képp ku xewle muy fu mu mënti bokk Siré Dia mi ngi jël xaalisam jël ay nitam yónni leen pour ñu defal leen ko ba tax ñoom ñu rallier ne dinañu jël comme randu leen dafa am enjeu yu rëy rëy ñoom nee nañu mën nañ ci dara dinañ ñëw dolliku ci la fa nekkoon ànd ceeg ñoom pour jàppale leen pour élection yi ñu dëgmal ñu jël la sa desoon yëpp jox ko Siré Dia mu mën ko jox président de la république. ah lii nag comme li ñu wax maa ngi koy wax léegi. gis nga bi ñu dugg see fii ñu gis public bi ni mu doon yuuxoo jeunesse bi yëpp di yuuxu ndax jeunesse bi loolu nag du sunu ndam du ñun ñii ñoo tax du suñu jëmm yi taxaw jëmm ki nekk suñu ginnaaw boot ñu roganti ñu muy Siré Dia moom moo tax nit ñi parce que moom moo nekk ci xolu nit ñi moom la waa Thiès safoo moom la waa Thiès faale donc loolu nag ku mu doyul dara dootu la doy te comme li mu wax il mise trop trop sur la jeunesse et les parce que jeunesse bi ñoom ñoo war a def différence te yàlla dafa def

Thiès Siré Sénégal ndax comme niñ vous wax président de la république de ci Sénégal yaa ngi gis ne Siré Dia ma nga fa est-ce que Siré Dia moom foofu li waral nak moy poste mo ëpp ay infrastructure ci Sénégal maa qui wax sànq équipe eh, bi gendarmerie ta poste ya fa nek fa poste nekkoon xam nañ ko fa ko Siré Dia yóbbu xam nañ ko moo tax ñoom ak seeni famille ak le recrutement que Siré a fait selon la demande postale jël ay nit ñu dem fa ñooñu ne ñun duñu noppalu duñu def dara dañu ànd ak postier yañ fa fekkoon ci

dox na gaa mais day gën a dox ndax barki dem gis nañ image yi à Saint-Louis gis nañ ni wa Kolda tako and ak Siré Dia gis nañu wa Ndar barki dem ni poussière ya fa nek ak sen famille tako kon lolu ku mu doyul dara dula doy da lolu nak ñun ñoko ras aussi ñu ngi leni remercier ñu ngi fi euh, le mouvement dirigé par Paul Adama Ba le teranga askan wi dirigé par Asioro bi nga xam kenn la ci directeur général di remercier aussi notre frère François parce que biñ ma tuddé drapeau bi mu deug randu leen dama ne waji demal nga tuddé François c'est pour montrer que nous ñun ñoo bokk ndey ak baay nous kër gu ci travailler de telle sorte qu'on sera organisé et stratégique par rapport koñ bu ñu nous nañu respectons ka que nous avons fait. quelle que soit dimension nous kuy dem ci koñ ñu koñ ba ka fa nekk booy dugg fayu demande à Ana ñoom Moussa Ndiaye ñoom Pape Cissé ne leen dañu bëgg a dugg fii ñoon waxtaan àndandoo du yàq dara ci liggéey bi da koy gën a rafetal et ça va montrer une dimension extraordinaire euh, de la capacité politique du directeur général booy dugg suba. Euh, euh, Kawsara mais nga demandé jéegay ngeen àndandoo liggéey ne ko jee lii dolli naa ko ci li nga loolu mooy liggéey rafet te on va s'organiser teg ci ay plateforme yoo xam ni dinañ ci waxtaan ak ñi ñu ci war a waxtaanal parce que suñu stratégie yëpp duñ ko def waale afin de redorer Euh, la victoire du président de la république bi nga xam ne na ça se profile à l'horizon li am ndar keroog wan na ne ñun suñu xel bu en train dinañu nelaw te et puis li Siré def daf dalal suñu xel am nañu avec Siré le président aura un deuxième mandat Inshallah dès le premier tour et on remercie tout le monde je vous remercie